félicitations ci jaraaf bi. merci mais Keita la vraiment kenn xamante ni loolu rek. oui kenn añu kenn demul dara ah vraiment ndam lu rëy la. ah jërëjëf di ndokkeel waa jaraaf yëpp. jërëjëf Mbaye jërëjëf Mbaye ak waa Issa Diobour. oui ak di ci ndokkeel ak sama xarit sama doom. Cheikh waa jaraaf yëpp jërëjëf